yoonu islam bi ñu sunu borom tànnal subhanahu wa taala ñu ngi leen di ndokkeel ci jataay yu tedd yu am solo yii di jataay yu xam-xam di am mbégte nag ci teewe gi ñu ko teewee di ko seereloo it sunu borom subhanahu wa taala di ñaan yàlla mu dëgëral dooleel ñi nga xam ne ci ñoom la yëf yi di juddoo ak képp ku ci jàpp ak képp ku doon sa yitte te tàmbalee ko ci kilifa bu mag di Cheikh Mouhamadul Sëriñ Maam Mor Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Mourtada xam naa waxtu wi danañu xaw a jet ba sunu nuyoo sunuy cant ak sunuy ngërëm lépp ñu koy jaarale ci sëriñ Xasan Juuf mi ci sunu wet mu eggaleen ñu ko ci mbooleem waa daahira ansaaru diin ak képp koo xam ne yaa ngi yittewoo seenum liggéey ni mu ko waxee nag tomb biñ tànnoon ngir bëgg ñu nafar ko muy manzilatu rasul sallallahu alayhi wa sallam inda alxadim radiallahu anhu ne ko oustaz fay waxee léegi ñu ngi jégalu bu baax ci gàllankoor yi ñu amoon nga xam ne nëgëni démb la waroon a jàll waaye ci coobare yàlla am lu fi dox ba ñu doxal ko ba mu agsi tey te gàllankoor boobu daanaka mën na maa wax ne bàyyikoo ci ñun kon ñu ngi jéggul waa daayira bépp nag wàccuwaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci sëriñ Tuubaa nag tomb la boo xam ne tànn nañ ko ci waxtu ndax jamono soxla na ko ndax wolof yi dañuy wax ne nit du fonk lu mu xamul nit du fonk lu mu xamul ñaare loolu nag day feeñ ci li ñu jamono indil alwaaqiul maish li ñuy indil dañuy gis ne léeg-léeg nga gis ko ñàkk a xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax digganteem fonk ko te yonent bi alayhi salaatu wasalaam def koo xam ne wàccuwaay wi mu am ak daraja ji mu am ca yàlla la njëkke yàlla bi ko bind moo ko njëkk a jox wàccuwaay woowu jox ko wàccuwaay wu mu joxul kenn nag teg ko it fu mu tegul kenn loolu buñ dikkee ci biir leeral yi nga xam ne Serigne Touba daf koy leeral daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam danañ ko ci gis wàccuwaay woowu ko yàlla jox nag dafa soxla ci bépp jullit mu jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam wàccuwaay woowu yi ndax suñu borom daf koo defal ci ay ngëneel ak i daraja waaye defal ko ci jikko nag loo xam ne ñim dëkkaloon sax te gëmuñ risaala bi mu indi jox nañ ko wàccuwaay ngir jikko yu rafet yi ne ci moom muy wax Xuraysh gi mu nekkaloon ña ca nangu wutoon risaala bi teewul gis nañ ci moom ay jikko yooyu xam nañ ni lii moom jikko mbaax la yoo xam ne du nekk ci nit ku amul solo looloo sabab turam yi nga xam ne jiitu na sunu boroom di ko yónni muy al amin ku ne xam ne ni tur woowu bañ ko koy tuddee jotagul ndigal ci woote ñam nekkaloo nit ñu doy waar lañ waaye ñu xam nit lañ na kon moom personnalité am rek buñ tegoon fële ngëneel yi ko yàlla defal muy muy ak jagle teewul ku ñu war di jàng la ku ñu war di bàyyi xel la ku ñu war a teg ci sunu kanam la ku ñu war di roy la te ku ñu war a wormaal moom nag bu ñu xoolee li ko sunu borom defal subhaanahu wa taala coobare yàlla la jum ko defal rek ndax ñaar yi gën a am solo ci nit muy jëmmi boppam ji ak jikkoom lenn lu ci nekk suma borom daf ko caa defal lool tiime na ko mbooleem bindee fi moo tax ba ko sunu borom di tagg taggewu ko lam doon tagge yonent ya ko jiitu woon wala lam doon seere ci ñoom ci ay jikko yu rafet seerewu ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam tuddul benn qualité daf ne ko rek jikko yu baax yi jikko yu mag yi yow yaa leen tiim wa innaka la ala xuluqin azim nga xam ne lu jikko màgg màgg lu mu rafet rafet rek yonent bi aleyhi salaatu salaam tiim na ko loolu nag tagg la wu bàyyi ko ci suñu borom subhaanahu wa taala te sunu kenn ku nekk ci ñun moo la gën a xam sa bopp kenn ku nekk ci ñun sunu xam sa bopp. mu defal ko nag ay ngëneel ak i daraja yoo xam ne kenn fekku ko ci yooye it xam naa tuuti lañ ciy lim te muy lu bari nag waaye ndeem li tax ñu jug dëgg-dëgg mooy wàccuwaay bi mu am ci Serigne Touba nga xam na loolu dañ ciy jaar ak jàll bu ñu xoolee doy na daraja sunu borom subhaanahu wa taala bind jaan ñépp tànn la ci biir jaam ñi def la ngay ab xaritam loolu daraja la joo xam ne moo ko wéetoo benn yónente rek moo ko amoon lu jiitu moom muy sunu maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam keroog ba muy wax saxaaba yi moom yónente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne Abdullah ibn Mas'ud moo nettali boobu xadis ba mu leen di wax ne ala innani abra'u ila kulli xillin min xillihi walaw kuntu muttaxisan xalilan la taxastu aba bakrin xalila ne leen bu ma amoon benn xarit bu may xaritool abu bakrin siddiq lay doon waaye nag inna saahibakum xalilullah waaye seen àndandoo bi na ngeen xam ne yàlla rek ay xaritam loolu ngëneel la loo xam ne su maam Ibrahima lañ gis sunu borom seeraloon ko ko ci alquran waaye nag yonente bi alayhi moom la muy wax ci làmmiñam mook la ñuy jàng ci alquran benn la ndax sunu borom moo ñu jàngal ci biir alquran ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa kon loolu doy na ngëneel waaye bokk na ci yi ko sunu borom defalit muy sangub doomu aadama nga xam ne lépp lu bàyyi ko ci sunu am aadama alayhi salaatu wassalaam dañoo wax noonu waaye mooy sangub mbindeef yépp nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo waxal boppam ci hadis ni ana sayidul qawmi yowmal qiyaama bu bis péncee ba sunu borom dajale jaam ñëpp su boobaa maay doon seenub sang bokk na ci li ko sunu borom defali ci daraja mooy ki njëkk a gëm yàlla ci kaw suuf boo jàngee qul inna salaati wa nusuki ba aaya bi jeex wa ana awwalul muslimina ni ci teg mooy ki njëkk a gëm sunu borom def ko it muy ki mujj ci anbiyaa yi ak mursaluna yi maa kaana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatima nabiyin yàlla la te mooy ki mujj ci ñoom sunu boroom defal koy ci coobareem topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaayanteeg moom képp ku ko def sunu boroom nangu ne topp nga ko moom yàlla te jaayante nga ak moom yàlla man yutii rasula faqad ataa allah ku topp yonente bi rek topp na yàlla sunu borom defal ko it ngëneel lu toll ne fu yàlla digle iman billah teg ci yonente bi ndax am na ci yéefar yi ñoo xam ne li teqale suñ diggante ak ñoom mooy ñàkk gëm yonente bi yàlla dafa lëkkale ak gëm ko ak gëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne boo gëmee yàlla te nanguloo yonente bi it du tax ñu limaale la ci jullit yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi suñu boroom defal ko it nga ne lu toll ni képp ku yàlla masa yónni rek te ña ko jiitu daf lay yebal ci aw nit benn muy mu yebal la ci ab famille wala mu yebal la ci aw askan walla mu yebal la ci am réew wa ila nangam axaahum dafa fees dell ci alquran wa ila aadin waaye moom bi ko sunu borom yónnee nag daf koy yónni ci nit ak jinne ñépp mu woo nga xam ne kon li ñuy wax umumu risaala moom rek la ko sunu borom jagleel ci mboolem anbiyaaw yi ak mursaluuna yi waaye doy na it ngëneel menn moom lañ gis sunu borom subhanahu wa taala jox ko wàccuwaay wu toll nii keroog ba muy wax ak moom te la muy wax ak moom ñor ko mu bëgg a wan yonent bi fi mu ko teg ak ni toll ci moom tax sunu boroom di giñ ngir dëggal dëggalal ko li muy wax ba muy giñ ci dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam la la giñ la amruka la amruka moom rek la ko sunu borom wax maa ngi giñ ci sa dund ne innahum la fi sakratihim yaamahun yemul ci giñ ci ak dundam waaye dafa àgg ci di giñ ci dëgg sax nag loolu yit di ngëneel lu ko sunu borom defal subhanahu wa mu mel ne kon relation bi ndox diggante Serigne Touba ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn sikki sàkkawul ci ne sunu borom moo leen boole subhanahu wa taala bi mu leen boolee it nag sëriñ bi xam ne kii kat mooy ki ko mën a àggale ci boroomam mooy ki nga xam ne li bëgg ci moom rekk la ko mën a amee mu dal di koy jàpp def ko muy léppam def ko mu nekk wasiilaam ci digganteem ak boroomam fekk jaaroon na ci Serigne Abdul Xaadir Jeylaani jaaroon na ci Ahmad Tijaan jëloon seeni wird bunt bu nekk mu fëgg ko waaye nag mu daal di def déclaration boo xam ne nag wane ni gis na ko tey nag képp kuy boroomum xel na nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy sama wasila sama digganteeg sama borom baana li kulli man lahu maxuulu anna wasilati huwa rasul waxaat ni dahara lii anna rasul allahi wasilati qataan ila al leer na naññ ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jottalikukaay bi nga xam ne ci lay jaar ba àgg ci sama borom subhanahu wa taala yëmul ci def ko wasilaam waaye nee na moom yonent bi sax mooy protège am bi nga xam ne lépp lu jëm si ci moom yonent bi mooy dox sa digganteeg loolu su dee lu bàyyi ko ci noon yi waaye mu jàpp mu wax na it yonent bi mooy jëmm joo xam ne ci moom la mën a jaar ba am ajjana ji mu bëgg muhammadun wasilati wa junnati an il aadi wal ada wa jannati mu ne na ngeen yëg ne nag jaayante na maag moom téye naa ko te du ma ko wutal mukk lu ko lu ko remplacer ci sama xol ndax diirub li ma nekk ci liggéey bi may liggéey ci sama diggante ak sama borom mi ngi jël ay njekk di ko jëmele ci man moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la waxee ni la abtaxi gayra nabi wasila wa fi la ida wajjahali jamila loolu day wone ni mu jaayantee ak moom ak ni mu ko jàppe def ko mu nekk wasilaam waaye ni mu ko defe wasila it noonu la ko defee àndandoo ci lépp lu muy tat bi ci lépp lu muy sóobu ci diggante mu boromam subhanahu wa taala boo demee ci asiru ma al abraar yi gis nga ni bi muy liggéey liggéeyam bu màgg boobu bi muy wax ay àndandoom rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi la wax alquran ak yonente bi rek ñooy samay àndandoo am beneen àndandoo bu dul moom dem ba yàgg mu jël engagement boo xam ne nag engagement boppam la tolluwaayam la timit nag wax ne nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shay'in wa ma yabaahu abaahu na ngeen yëg ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy sama objectif ci mépp mbir engagé wu ci ne lépp lu yonente bi bañ rek bañ naa ko waaye engagement boobu it dafa dem ba yonente bi it engagé wu ci ne lépp lu sëriñ bi bañ rek bañ naa ko bi muy leeral engagement bi yonent bi nag xam nga waxi boppam moom dafa wax noonu rek nabiyuna al mustafa xayrul wara bi fi kulli shay'in wa ma yabahu abahu waaye bi yonent bi demee ba engagé wu nag ngir nit ñi nangu na yonent bi engagé wu na ci lépp lu sëriñ bi bañ bañ na ko bi muy leeral loolu dafa wax ne aqsamtu billahi maa ngi giiñ ci yàlla ne inni li nabi abadan xillul waxibun wa ma abahu yabahu lépp lu ma bañ yonent bi bañ na nga xam ne kon ñaari bayit la yoo xam ne bokkuñ maana lay engagement boppam la moom moo ne lu yonent bi bañ bañ naa ko waaye mu dem ba giñ na nag yonent bi kat àgg na ci lépp lu ma bañ bañ na ko ci ne bi àgg na ci lépp lu ma bañ bañ naa lépp lu ma bañ bañ na ko nag mu daal di tegal tegaat ne nag kon maa ngi giñ ne billaahi alladi laa ilaha illa huwa alkarimu alalim xayaati wa mamaati wa xarakaati yi wa sakanaati yi maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy lu ama am solo sama dund ak sama faatu sama dal ak sama yëngatu maa ngi seereloo yàlla ni fas naa ko yéene ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax nag mu dem ba àgg ci di wax ne mujarradu dhikri ismi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maanaam tudd turam rek moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu muy def ci moom loo xam ne leneen du ko def ci moom nee na bu àdduna bépp raafoor ba mel ni moom mu des fi tey dégg turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu dana ko doy wéttal nee na bu ko àdduna bépp wanoon ginnaaw luñ man ci di ko naqaral ñu ne ca waaye muy dégg turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dana ko doy mbégte wax ne tudd turu yonente bi sallallahu wa sallam mooy leeru xolam waaye mooy leeral ay cëram waaye loolu it moo ko mën a jox am am naflaay muhammadun dhikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa mu daal di tàmbali nag ñu gis muy wax wax yoo xam ne day mel ni saxaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ doon feeñal ci seen digganteeg yonente bi ci ngëm te boo demee ci kutubu siira yi ñu di ko tudd rawaa'iul iman sëriñ bi di wax wax yoo xam ne day day mel ne su fekkonte ne la mu bëggoon yàlla defal na ko ko ci digganteem ak yonente bi te mooy mu mu mu jamononte woon ak yonente bi ànd ak saxaaba ya dana def lu raw lañ defoon saxaaba yooyu nag. am na ci ay benn benn yoo xam ne lañ defoon ci jaloore ci seen diggante ak yonente bi alayhi salaatu lu kawe la ndax boo seetee Abu Bakrin Siddiq mi nga xam ne ci mag ñi la bokk bokk ci njëkk gëm yonente bi sallallahu alayhi wa njëkk ko wuutu lim defal yonente bi ak fi mu tegoon yonente bi fu kawe la waaye jenn jëf da ciy wone dayoo nam jàppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy bi mu àndeek moom di gàddaay ba ñu agsi ci xunti moom yi waxtu guddi yéefar yi màkk yi topp leen suraqata ak pas-pas ba mu amoon ci ñoom bi ñu dikkee ba agsi boo demee ci kutubu siira yi da nga ko ci fekk foofu Abu Bakrin Siddiq la mu fa wane lu kawe ndax ñëw ci barab boo xam ne xur xunti moo xam ne mosu fa dugg lu ne mën na faa dëkk ci luy lor doomu aadama waaye mu jox mu ne na yónnente bi bàyyi mu dugg gëstu ko boo fa fekkee luy loree mu yem ci moom bañ agsi ci yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko fa fekkul nag yónnente bi doo ko jàll si loolu nga xam ne bii mu duggee wax nañ ne kàmb yi mu fekk ci biir yëpp daf ko sakk rek ba mu des genn kàmb bu fa tànkam teg ci daal di wax yónnente bi alayhi salaatu salaam bismillah bi yónnente bi duggee dox bu metti bi ñu doon dox fekk na yónnente wax nañ ñu sonn na bi mu duggee rek dafa daal di fab ab lexam teg ko ci pooju Aboubacrine Siddiq daal di tàmbalee nelaw Aboubacrine Siddiq fi mu teg tànkam jaan daal di koy matt waaye wax na ni coono bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam sonn na ko ci dox bi ak ñeewante gi mu ko ñeewante tax na ba bëggute yëngatu di ko yàqal nelawam yooyu waaye mettiitu matt mattu jaan jooju ak dangar ji yéeg daal di rogalaat aw ñaq ci moom mu dal ci loxob yonente bi alayhi salaatu salaam ci la bi yeewoo laaj ko lu xew mu ne am na lu matt mu daal di bi mu sedd loolu lenn ci engagement yi nga xam ne doon ko jël ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaara ngi ñoo xam ne it loolu sëriñ bi loolu sëriñ Touba doon wax ci jës bul xulul ci diggante yonente bi ak saxaaba yi bayit woowu jëfi ñaar ñi da koy gën a wane li mu doon wax ne tanaasaul mawta maa wal kullu minhum shajaa am na saxaabi bu ñuy wax abu dujaana abu jaana boo demee ci kutubu siira yi nga dem ci xaswatu uhud dafa def jaloore ju doy waar joo xam ne keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee jaaseem saxaaba yépp wër ko mu ne ana kan moo mën a jox jaasi ji àqam am na ci ulama usira yi ñoo xam ñu lim ay benn benn ci magi saxaaba yi ñoo xam ne ñëw nañ proposé yonent bi bëgg a jël jaasi ji mu na leen déedéet mën na leen ko jox àqam bi abu dujaanata ñëwee moom laaju ko dana ko lan mooy àq jaasi ji yonent bi alayhi salaatu salaam xanaa nga yor ko di xuus ci biir xare bi di faagaagal noon yi mu ne ko mën naa ko jox àqam bi mu ko joxee jaasi ji ba mu jug di dem wax nañ ne dafa pantal ay mbaggam bi muy dox yonente bi di ko xool ba yàgg mu ne doxin wii de dafa xaraam ba mu des fii mu ko defee bi mu àggee këram daal di jël kaalaam gu xonq googu yi ñuy tuddee isabatul mawt nga xam ne fu mu ko mas a kaalawoo waa lansaar yi xam ne nar na mbir ndax jàmbaari xare am na ci saxaaba yi koo xam ne nee na bi ko yonente bi joxee jaasi ji te nangu koo jox mag ñi dama ne kii kët li na ci ginnaawam ba tax yonent bi nangu koo jox jaasi ji te nangu koo jox mag ñi danaa ko xam nee ne xare bi daanaka moom xarewul ngir Abu Dujaana la doon topp di xool ci lan la nekk waaye nee na mi ngi ko seen ci njàmbaar goo xam ne gisul kenn ku mas a am njàmbaar gu mel noonu waaye la ca gën a yéeme nag mooy biñ demee ba ndax ku ne xam na ne xasuutu Uhud njëlbeen nga jullit ñee ko gañee waaye biñ mooyee ndigalul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndam li wëlbatiku dellu ci yéefar yi diggante boobu nag li muy gàtt gàtt nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam xaw nañ ko fee jekku Abu Dujaana dafa bokk ci ñi nga xam ne dafa ñëw tiim yonent bi alayhi salaatu wasalaam fab digg ginnaawam ngi def ko mu nekk pakk boo xam ne xeej ak fett ak jaas yi jëm ci woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko doon fekk nga xam ne amul lu ko fegale waaye ginnaawam la jël def ko mu nekk pakk boobu Abu Bakrin Siddiq Sayyidatuna Aïcha moo ñu nettali di wax ne buñ masaan di waxtaanee xaswatu uhud danaan zalikal yow kulluhu li talxa bis boobu day lu cay aw yu rek mën nañu wax ne talxa ko ñu ne ko nu talxa def mu ne keroog ci uhud day bi ndam li wëlbatikoo man bokk naa ci ñi njëkk a gendeeku ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu yaa ngi koy waaj a jekk maag abu ubaydata abdullahi amir ibnu jarrah bokk nañ ci ñi njëkk a gendeeku loolu waaye biñ dawee ñëw nag ngir sowe si ko biñ agsee ci moom yonente bi alayhi salaatu salaam dafa ñoo wax nañu ñu dunakum axaakum xool leen seen mbokk moom yi ba noppi muy talxa nee na biñ ñëwee xool talxa fekk nañ ci moom bid'un wa sab'una bayna taanatin wa darbatin wa ramya juróom-ñaar fukk ak lu topp ci ay jam-jami xëy ay jam-jami fett ak ay dóori jaas yi nee na fekk nañ ko ci tàll te yépp nag nee na mi ngi jëm si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu taxaw tiim ko rek ngir aar ñooñu nag niñ fabe woon seen bakkan jiital ko ci bakkanum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu yonente bi mas a bëgg ñu bàyyee ko teg ko fuñ tegul kenn nga xam ne sax keroog bi xam yi xamiya déclaré ci ne rey na yonente bi te fekk loolu amul wax nañu am na saxaabi boo xam ne dafa ba kàddoom jeex mu ne tey du bisu dund ndax bis bu yonente bi alayhi salaatu salaam nekkatul ci kaw suuf ana ñu lañ fi def sëriñ bi nag jamono yooyu yëpp daf koo faat waaye bi mu dikkee li muy wax teñ gis ne boo ko fi fekkoon mu bokk ca ñooña moom dafay mébét suuf soose yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jaar ak a neexoon sunu borom taw féexal ma waxuma ñu koy jëmale ci moom xeej wala fett wala jees yi waaye dégg gi nga xam ne ci garab rek la bàyyi ko bu demee ba nar koo jam ma teg ci sama lex mu jaar ci bi ci des jàll xaddi wiqaayatu li rëj lil mustafa min sawkatin wa ma yudahi al aqraba ko jiit naree fet wala jaan nar koo matt wala koo jam ak a neexoon mu fab tànkam boobee teg ko ci sama lex jàll te mucc ci yooyu loolu wax ju kawe kawe la xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytahu lahadani bi fadlihi sama lex bii de jël naa ko def ko mu nekk suuf soo xam ne ci la ay ndëgg ndëgguy tànkam war a jaar jàll loolu lenn la ci mébét yi nga xam ne sëriñ bi da koy wane ci kaaraange gi nga xam ne yéen na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag am na ci diggante boo xam ne it mi ngi ñuy wan fa mu ko teg ak ñàkk a yamonte bu yonente bi ñàkk a yamonte mbindeef loolu sëriñ bi wax na ci ndax loolu yàlla moo ñu ko wax waaye sëriñ bi nag bind na ci wax ci loo xam ne wane na ni fa ko yàlla teg teg na ko fa wala bu ko mënee teg fu fii teg ko foofa teg na ko fa la njëkk a wax bokk na ci wala ci liñ gëstu li njëkk a bokk na ci kii yàlla yónni di Muhammad mel ne moom mësta am ci ñi weesu te dootul am ci ñi fi nekk amul ci ñi fi nekk te dootul ci ñi ñëw ëllëg lu feeñ ak ci lu nëbbu na ci waaxit ak ci bàttin lam yabdu mislu Moustapha Muhammadi sirran wa jahran fil baraaya samadi waxaat ne Muhammadun midaaluhu lam yaati jëmm la joo xam ne day ku mel ne moom dootul ñëw ku mel ne moom mësta am fii ma madaa ci li weesu waaye wa abadan laa yaati lii ñëw ci kanam bi dootu ci dikk xam nga sëriñ bi léeg-léeg mu wax lu am solo. loo xam ne bu ko waxee bàyyi noonu rek du tee ñu gëm ko waaye ngir bëgg ñu dëgg li muy wax da koy giñ ci yàlla rek mu delluwaat wax ne billaahi lam yaati walaysa yaati mislu bni abdillahi sil ayaati maa ngi giñ ci yàlla ne mësta ñëw te dootul ñëw ku mel ne muhammad ibni abdillah waxaat ne billaahi lam yaati sa yaati xalqun ka misli sayidi saadati loola lam cay dàq mooy ndendul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi wane yit nongu gim nongu yonent bi def gi ko suma borom def mu tiim mbooleem anbiyaa yi ak mursaluuna yi ak malaayika yi sax nag tax mu ne nabiyuna ahmadu sunu yonent bi ñuy wax ahmad ñu ne ko haa mu ne faaqal anbiyaa mu tiim mbooleem anbiyaa yi wa rusla wal amlaaka inda rabbiya ba yàgg mu ne ndax ñett ñooñu du ñoom rek ñooy mbindeef yi bu ñu nee mbindeef yi moom mooy lépp lu yàlla bind lu dul yàlla rek mbindeef la lu wuuteeg jëmm yàlla ji rek ak la ca aju ci mbindeef lañ lay boole mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tiim mboole mbindeef yi inna ibna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdihi xaaliqu zaman képp ku yàlla mas sa feeñal wala nar ko feeñal ëllëg na njëg ne doomi abdullahi ji moo la tiim waxoon ne ahmaduna al muxtaaru faaqa al faa'iqiin ña ba jàpp na ñoo raw ñëpp yonente bee leen raw alxudama aw alxiyaar allaahiqiin ca ñu jiitu woon ak ñuy ñëw ëllëg demaat ba yàgg mu daal di yëkkati loo xam ne alal baraaya ki gën a kawe ci mbindee fi yàlla yi ñu ne ko haa mu ne wa anqaaha ki gën a set ci mbindee fi yàlla yi ñu ne ko haa mu ne wa akramiha ki gën a tedd ci mbindee fi yàlla yi ñu ne ko ha mu ne muhammadun mooy muhammad man lahu maa xirtu muhtasiba leeral it luy wane ne li ko suñu borom defal ci ay daraja ki ngëneel moom rek la ko yàlla defal tàmbalee ko nag ci li jiitu muy bind sunu maam aadama tax mu ne ko xaasa nubuwata qabla baasati jaddihi bala sunu borom di tànn di la jox nubuwa booba yónneegul sunu maam yónneegul sa maam ji ñuy wax maam Adama wa bihi saadatu jaddihi kal hummadi ne ko ci ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la texeeg maamam jooju di Adama nekk waxaat ne xaasa rasulullahi maa lam yadri xalqun walaw faasa bi uluwi lqadri nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam day làq na ci ay daraja ki ngëneel loo xam ne lu nit kawe kawe daraja lott nga ci xam daraja yooyu tagg na ko ci gis bu nag tagg bu am solo wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahara wal mislu xattu lam yura ni yura fi chebi waxaat ni rasuluna muhammadun salla alayhi salam maa salaamin yuhmadu wusifa bil mufaddali nga xam ne kon mooy kii sunu borom melal ci xeeti ngëneel yoo xam ne moom rek moo ko jagoo dal di tàmbul nag di waxanteek moom nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa ndax day mel na lii xibaar la yoo xam ne sëriñ bi day wax ak ñun di ñu leeral fi yonent bi nekk waaye nag am na ci yooyu yonent bi da koy adressé rek laka sàpp wa taqdimu yaa xayra sayidi yow ngën ji sang jiitu nga ñépp la dal waahidi alqahaari rabbil wara jalla ne ko lakal fadlu yaa muxtaaru yaa sayid alwara yow sangu mi def yépp alayka salaamullah yaa man mahaadullah yàlla defal na la ngëneel lu mu defalul ne ko la anta imaamu rusuli qad jaa annahum talaaqawka fi l israi wal kullu qad salla yaa jiite mboolem yonent yi ci guddigoo gii nga xam ne ci la suñu borom defale al isra wal mi'raj loolu ba demee ci mawaahibu wala gis bu da fekk mu di fa indi xat xaddamuuhu iswaajahuuhu waxtaramuuhu zawi naqaa'i wa saada fihim wa baana anhum wa siina anhum baada irtiqaa'i boo demee ci xamat suleyman foofee lay waxee ni mbooleem anbiya yi mursaluuna yi keroog ci guddi googu la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal lépp lu aju ci xeeti teggin wal anbiya wa kullul mursalina maan taallamu minhu adab al mu dellu waxaat ko ne ko yow kat sunu borom dalaa solal koddaayul ngëneel dalaa solal koddaayul tedd nga dalaa defal it ay jikko yoo xam ne mbindeef lott na ci xam jikko yooyu waxuma bu mu di ko am labista siyaaba almajdi walfadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajasa al ne ko def danga ngaa kawe mbindeef yi kawe goo xam ne képp ku jug di rawanteeg yow na yëg ne boroomu texe di rek la képp ku di rawanteeg yow ci texe ci kawe na yëg ne borom texeet rekk la alaw taatilaan laa yujaarika xayru man lahu shiqwatun qad tujibu na wa daa dal di wëlbatiku nag di waxaat ak ñun li muy waxaat mu dañu ko adressé di ñu wax ne mbooleem tànnee fi yàlla yi sunu borom defal na leen ay ngëneel defal na leen ay daraja waaye na ngeen ne kenn melu fa ni Abdullahi doomi Abdullahi jooje fa yàlla mbooleem sang yi kenn ku ci nekk am nga ay daraja am nga worma waaye nag wormay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tiim na wormay sang yooyu yëpp gis nga ko moom jamono bu nekk suy màggal yonente bi du tax mu wàcce kenn du tax mu suufeel kenn da koy teg fa mu war a nekk te lu keneen amit mu nangul la li kullin min al axyaari fadlun wa rubbatun wa ma kabni abdillahi abdun lada al ali li kullin min alsaadaati jaahun wa xurmatun walakinna jaaha al mustafa al barri yaatali mu waxaat ci ne wax joo xam ne yonent bi la ko adressé masayaaka yaa kulli la dal kulli xat jalat walakinaha jalat an alchehri wa nabbi ne ko say ngëneel nag yaa kulli moom dafa fab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy léppam ne ko na nga yëg ne say ngëneel nañ ci mbindeef lottu na ci leeral ko ci way wala wesar xalima lott na ci bind ko di wax ba yàgg mu ne daal maqaamaatu xayril xalq nañ yëg ne maqaam mi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën ci mbindeef yi an xayri rabbihi muxayiba ku dul yàlla ump na wax ne xaasa nabiyullahi maa laa yaalamu illa alladi lawhu lahu wa qalam ku dul yàlla mi borom lawxul mahfuus ak xaliba gëmi binde li yonente bi làq ci ay ngëneel lott nga ci xam mu wax ne gaa ñaa ngi bind nag ay téere ñu koy tuddee kutubu siira waaye nañ yëg ne darajatul muxtaar yi faaqati siira xaabat an il albaab yi faaqati la ibar raw nam xel raw na xalaat darajatul abdi rasuli ahmada sayaratil axyaari xurram hamida nee na àgg na ci darajaam jooji moo def gaa yu baax ñu nekk ay tànniif nga xam ne moo leen taas ci barkeem ngir ñu nekk ay tànniif loolu lenn la ci li nga xam ne daf koy wax jëmi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wane daraja ji am fa yàlla waaye léeg-léeg it gis nañ nag bi loolu lépp amee it moom bi muy dox jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon dox jéego par jéego lenn lu ci nekk su ko bëggee da koy ñaan yàlla dox jëm bokkoon na ci nag lim bëggoon lool te am xeymamtéef ci loolu mooy jóge ci réewam mu tedd mii mu nekk siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko mébét nag boo demee ci nuuni ya da fekk mu cay wax ne arju bi rahmatihil muhdaati sayidina maa ngi yaakaar ci sama borom waaye nag ci barke bi yërmandeem ju tedd ji moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy sunu sang lan lay ñaan yàlla zawri madinatahu daaru rayaxiini su tuddee barab ba bi nekk rek da gis ne day tagg barab ba waxaale ci ay naa jëm yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax mu teg ca ni daarun mata ma yazurha zairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaq wa diini di ko mébét nag ci ci ci ci jëmmam maanaa jëmmam la doon mébét mu jóge ci réew mii mu nekk dem siyaara ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa laytani qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri xatta yuzila awadi gis nga ni ma nee torox aka neexoon ma am tawféexi siyaara ji ko ci sama jëmm ne ko samam xel di xalaate jamono bu nekk ndax loolu mën a dindi dëng-dëng yi nekk ci man ku ne xam na ni daray dëng nekkul ci moom yaa laytani marraxtu inda qadami xaddi aw xaddi aw laxadani bi karami loolu lépp day wane rek yéene ju amoon ci siyaara ji yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag ku ne xam na ni ñàkk gaa def gàllankoor bu mag la ndax boo demee ci irwa u nadim bu Cheikh Mahamadou Lamine Diop ad-Dagani gis nga waajtaay wi sëriñ bi waajoon ngir dem Makka ba waxante ci woon nag Muhammad ibn Hamd al Abhami moom yi waaye ba mu demee di waa ji ngir ñëw ànd ak sëriñ bi ci la xew-xew bu màgg boobu yi xew te mooy boole gi ko sunu borom boole ak noonu lislaam yi eh, mu war a liggéey liggéey bu màgg boobu yi gàllankoor yi dox ci digganteem ak seere ji yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi jamono bu nekk ak na muy jàppe gàllankoor boobee ak na mu koy tuddee nag jamono bu nekk ak na koy jàppe ak na mu koy tuddee léeg mu jàppe ko sax léeg-léeg mu jàppe ko ayib léeg-léeg mu jàppe ko gàcce loolu lépp li di tegtale xér gu mu amoon ci dem madinatul munawwara ngir siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax muy wax ci raaya boobu di wax ne wax walladi eeqa bi lay wax ne jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru am na gàllankoor ci jëmmam ba mënta dem waaye làmmiñam akub xolam jamono bu nekk ñi ngi siyaare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaquuqu ni aybi ani ziyaar gis nga nee naa la gàllankoor boobu ko tee dem madina léeg-léeg di koy tudde ayib wa artaji bi mathihil bushara waaye maa ngi yaakaar na ci tagg yi ma koy tagg mu defal ma ci mbégte yaquuqu ni danbiya xatta lam ara wa lam ara al madinata mu ne gàllankoor boobu yi nga xam ne moom la tuddee bàkkaar nee na moom a gàllankoor ba nëru gis rek fa mu tëdd nërumaa gis it madinatul munawwar mu dem ba yàgg nag loolu def ci xolam lu rëy loo xam ne diis na ci moom mu jàppe ko bàkkaar bu mag ci diggante ma borom mu jàkkaarloog boromam di ko tuubal nag gàllankoor boobu yi di ko wax ne xafaaru yow yàlla mi nga xam ne yaay jéggalaa ko nu bàkkaar yi lixfir sunubi waf ku kan kabali bi man alayya li tarki zawruhu aar maa ngi lay ñaan nga jéggal ma bàkkaar bii nga xam ne mooy gàllankoor bi dox sama digganteeg siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa te ñàkk a siyaare gi ma ko ñàkk a siyaare nag di gàcce gu mag ci man di gàcce goo xam ne ñaari bayit a ngi taxaw ci sama kanam di ma yedd ci loolu bi man yuxaatibu nii fi zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil urfi ammaaru ñaari bayit yi mooy man mooy yan zur man tuhibbu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamnaannaka buudun min ziyaaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawwaaru kon amoon na yéene ji ci seere ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg ak fonk ak jàpp gum ko jàpp bi mu demee ba gis ne gàllankoor boobu it nag coobare yàlla la ci la wëlbati yitteem nag jëme ko ci di ñaan boromam subhanahu wa taala mu defal ko tawfeex ci mu mën a gis jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmmam ju tedd ja mu daal di tàmbali nag di ñaan yàlla mu defal ko tawféex yi jàkkaarloog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul ay nelaw ilaahi fa salli bi gayri intihaa ala almustafa dil muhaya sabih salaatan turini huna wajhahu maa ngi lay ñaan salaatu wa salaamu xam ne da ma ciy wan jëmam ju tedd joojee ayaanan ñu jàkkaarloo maag moom li yashfi li yashfi qalbil jarih ngir mu man maa saafaraal sama xol bi nga xam ne dafa ragg ayaanan li yashfiya qalbil jarix waaye loolu mu ñaan de suñu borom defal na fii ci Touba ci jàkkee Daaru Xuddoos la ko suñu borom wane mu jàkkaarloog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mahamadou Bachir nettali na ko foofee it la engagé wu ci ña àndoon ak yonent bi di asxaaba ridwanullahi alayhim ajmain <coughs> la am. ci seen ànd gañ ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laq ko ci xasawaat yi ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi daal di am xeemim téefu bokk ci gaa yu baax yooyu yonente bi ko lam ko leeral ci ñooñu kat liñ am jamono jëleen ko la leen ko mayoon jamono passé na waaye nag manees na koo am ci geneen anam sëriñ bi daal di engagé wu tàbbi ci loolu loolu am na bayit woo xam ne ci njëlbeen bi mu jaayante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ci dellu siwaatee dangay gis ne da koy firndeel ndax bi mu naan baayaatu xayral mursalina dagtiraab naawiya hijratin wa nasrin ka saxaab jaayante na maag moom fas yéenee dem nag ci tumuranke gi ndax yéene ju ma amoon ci àndoon ak moom gàddaay na ko saxaaba yi doon foofee la njëkk a gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis boobee nag gàtt lool ci moom mu génne fa jóge Touba dem Jolof sax fa diir ba mu fa sax ci diggante boobu la doon waaje ngir bëgg a dem gàllankoor yi am sunu boroom dogal génn bi am mu génne Jolof nag jëm jëm dal ngir wuyu ji bi mu ba jeewale foofu saxal nañ ni tase na fa ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak moom foofu nag wax nañ ni bi ko yónnente bi alayhi salatu wa salaam feeñoo dafa waxanteeg moom ci ne ko yaa ngi bëgg a dugg ci mbir moo xam ne nii boo wóoluwul sa bopp lool ñàkk caa dugg damay gën a dugg ci ndax deme nañ noo xam ne lépp loo sóobu ndam loo ci am maam ci lu ni toll waaye gàcce boo ci am maam ci bu ni toll te it la sañ a dimbali ndax bu ma la dimbalee rijaalullahi yi dañuy wax ne loo am dañuy wax ne maa la dimbali moo tax nga am ndax ñoom ñëpp bëggoon nañ ko ne ko nag lenn rekk laa la mën a dimbalee mooy natt bu njëkkati jëme ko ci yow dinaa la ko xamal balaa agsi foofee mu tàqali wat tàqaliku waat ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñam àndal jëm ci tukkee bu màgg boobu loolu di yoonu ñaareel ci li mu doon ñaan yàlla ngir mu wanale ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ne sunu borom defal na ko dem na nag ba jëlale naa moom mu koy gis waaye àgg na ci di ko wane dem na ba ñi mu àndal mu di leen wan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam guddi gàmm kon lam doon xëy ma ko mébét lii ci sotti war nañu ne lañ ci gisutit noonu la ko suñu borom defalee jaayante gi mu waxoon ne dafa jaayante ak yonent bi nag dafa wax ne damaa jaayante moom ci xidma maanaam di ko liggéeyal ubaayiu al yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa ñaan yàlla it mu defar ko mu mën a matale engagement boobu bokk na ci yi nga xam ne mën nañoo jàpp ne sëriñ bi doon na ko doxale digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yëpp mën a dugg ci baabul xidma ba ca jiitu mooy topp sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara jiitu ko ci liggéeyal yonente bi moom nag istislaam bi nga xam ne kenn mënu koo ñàkk moom daf koo def ci digganteem ak boromam waaye nag fab yonente bi digale ko fa aslamtu nafsi li rabbin la daan wax sharika la jébbal naa sama bopp yàlla mi nga xam ne amul jenn aji bokkaale waaye nag maa alladi afwuhu suxli wa haajaati ma ànd ak jëmm ji nga xam ne xeetu sunnaam topp sunnaam mooy sama yitte mooy samay aajo amul benn aajo bu dul xeetu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy firndeelaat ci yeneen abyaat ne laysat liyal yawma xaajaatun uammiluha tey jii amuma benn yitte boo xam ne danaa ko mébét si waqti faika ndar xeeñtu sa sunna rek xaf wal bi wal badani xeeñtu ak topp koo xam ne xol bi lay doon ak jëmm ci wane ni it engagement bii nii mu toppee sunna kat ci xolam ak jëmmam képp ku ko deful weneen yoon woo mën a aw na nga ne yaa ngi waru ci sa diine man lam yakun bi di muqtadiyan fii diinihi fa huwa maxwurun yuri niqama <coughs> yara niqama wax ne képp koo xam ne sóobuwoo ci yoonam topp ci na nga yëg ne ay manoot yu diis mi ngi lay néggandiku ci sa kanam waaye sawaraw tàngit mi ngi lay néggandiku ci sa kanam wa man lam yalij nahjahu yuntazar bi xullin vaqilin wa naarin lafuux dem ba àgg ci ne ki lànk bañ topp yonente bi aleyhi salaatu wasalaam bañ a topp sunnaam su fekkee mi ngi yaakaar ne ëllëg mën naa wax a wax ba tàbbi àjjana na ngeen ko laabiire ci ne ko mu ngi ci ak war rajaau jannatin bila taatin bi sunnatil maahi gururun yaati loolu mënta nekk bokk na ci it yi nga xam ne mën nañoo wax ne sëriñ bi doon na ko xidmaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy boole ci ab liggéeyam tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it dafa wax ne yaa akramal xalqi inni xaadimun lakama axya bi matxin wa dabbil qasidaati fas yéene di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li feeg mi ngi dund boo demee ci Ahmad Souleymane da nga ca fekk aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin ma alladi matkuhu shar'i wa aadaati daa dem ba gis ne tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sharia la ci moom waaye aada la ci moom sharia la ci moom waaye aada la ci moom tagg yooyu nag ku ne xam na ni ña daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ne Kaabu ak Xasaan ak Busayru te moom bi mu dikkee di leen tudd ci biiri mbindam di wane ne ñooñu ay jàmbaar lañ yoo xam ne seen lañ daan bind lépp leer la Kaabun wa Xasaanun wal Busayru qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nuurun wa asraar noonu mu leen doon tagge ak di rafetlu lañ defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul dem na nag ba xasaan ibnu saabit moom mi nga xam ne ci ñi ci gënoon doon jàmbar la bokk sëriñ bi wax ci ay barab yu bari ne dem na bàgg ci yor darajaam dem na bàgg ci wuutu ko dem na bàgg ci koppi jëmmam doon ko dem na bàgg ci suñu borom defal na ko tawféex mu weesu xasaan ibnu saabit ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole kooku nag di julli ci yonente bi ndax ñaari yii la xaaj ab mi moom daf ko sédd la ñaari xaaj juróom benn weer yii mu ci tagg yonente bi sallallahu juróom benn weer yi muy julli ci moom salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta ma axtisaay nga xam ne boo demee ci xasida gi mu tëggee gi mu tëggee wa innaka la ala xuluqin azim boo ko tëgg nag mu xadimatul am ndax ndax wa innaka la ala xuluqin azim moom li gi sëriñ bi tënk ci ay li mu ci bind ci ay xasida ëpp na fukk am na ci koo xam ne da cay wax ca biir di ko wax ne ko yaa rasulan lahu udimu salaatan nga xam ne day wax ak yonente bi daan ko waaye yow mi nga xam ne nag damay saxoo julli ci moom maa salaamin walan tasaala bahija loolu ñaari mbir la yoo xam ne dafa dëkk ak ñoom julli ak tagg jàppe leen nag xidma liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa ci di julli ci moom ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci di ko tagg te lenn lu ci nekk boo demee ci alquran it gis nga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mu dem ba sunu boroom defal ko tawfiq ci liggéey boobu muy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu àgg ci fu ci nit mësta ak tawfiq jooji moom lay junju ci raafaqtu fi xidmati tawfiqi xaaliqina tawfiqa xaaliqina liggéey bi may liggéey liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day dem naa ba am ci tawfiq yàlla bi ñu bind bi muy tàmbalee tagg di tàmbalee lëggéey lenn lu ci nekk ña ko ca jiitoon te doon ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen di tudd wax njàmbaar ga ñu amee woon ak di xeemee ma bokk ca ñoom ku ne xam na ni xasan ibnu saabit ak anas ibnu malik sëriñ baa ngi ñaan ci bayit woo xam ne maqaama yi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla defal ko maqaama yu toll noonu wajal maqaami maqaamal murtada anasin bi xidmatin liggéey bii ma la liggéeyal yàlla nag ma ci defal ma am ci maqaama mu toll ne maqaamam anas waaye nag waka tagg yi ma lay taggit yàlla nag ma defal ma am ci maqaama mu toll ne maqaamam asa diir bu gàtt ci bim ñaanee loolu boroomam lañ gisaat mu wax ne lii xuttama zahzaha an ya danas surtout xadimal Moustapha mislu anas mujj naa mel ni anas moom mi ma doon ñaan sunu borom defal ma ma am maqaamam yu kawe yooyu waaye ginnaaw diir bu gàttit nag ñu gisaat mu ne barra anil xudduus min kulli danas wa inda xayril xalqi jaawastu fa sunu fa fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggi naa ko anas ku ne xam na ne anas boo demee ci saxiixul Buxaari da nga gis bi muy nett nettali <coughs> biñ ko indi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ne fukki at la am fukki at la nekk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki at yi mat yonente bi wu ji boromam subhaanahu wa taala bi nag lim lëggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim ko tagg ëpp na ñeent fukki at bu dee Kaab ibn Xasaan moom yi wala Xasaan ci boppam da gis ne. laqad sirtu abdallahi billahi wahdahu xadiman li xayril xalqi xattan ka xassaana liggéey bi may liggéey yonent bi sallallahu alayhi ak tagg yi ma koy tagg dem naa ba mel ci ne xassaan diir bu gàttin mu waxaat ne mallaktani wa xuttani ixsaana waristu fi matxin nabi xassaana ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem naa ba doon mu ci nag xassaan ibnu saabit diir bu gàttin ñu gisaat mu wax ni aslamtu wajhi ilayka al yawma da ahadin <coughs> liman xadawtu lahu kaaban wa xasaana diir bu gàtt mu ne dem naa ba mel ni ku copier jëmmi kaab ak xasaan ci boppam diir bu gàttit ñu gisaat mu wax ne raditu an il wa an xayri xalqihi wa fi mathihi jaawastu kaaban wa xasaana ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggi naa kaabu ak xasaan foofe nag la ko suñu borom defalee mbooleem ku mas a liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tiim buñ ne liggéey nag yi ñu doon a ngi ci biir bëgg yonente beeg julli ci yonente beeg xeeñtu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di tagg yonente bi lépp mën naa ci biir mu dem ba sunu borom def ko mbooleem ku mas a sóobu ci yoon woowu moom sayxul xadim mu nekk ci sa kaw loola it dafa wax ne mulkul alil baaqil xadim jaxale ni yàlla ci boppam moom ma def ma ma gën a yëkkatiku ci mbooleem liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> li man lahu fadlun yaduum ci képp koo xam ne borom ngëneel la lu sax dàkk wasaana ni fii xidami te sunu borom daf maa ñoŋalit ci liggéey bi may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> bu dee ci wàllu mahabba bi nag ci cofeel gi ma am ci digganteem ak yonente bi alay alayhi wa sallam loolu doy na ci misaal dañuy gis ne lépp loo xam ne am na relation ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nam soppe yonente bi lay soppe loolu nag bu ñu doon lim mën nañ ciy lim alquranul karim nam ko jàppe woon gisuñ kenn ku ko mas a jàppe noonu te jaar gim jaar ci loxol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko muy dusturul muslimin naka noonu hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it gis nañ mu jàppe ko noo xam ne néewaa ñu gis ku ko jàppe noonu naka noonu ahlul bayt ñu te ahlul bayt ku ne xam ne ahlul baytu rasul sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi fonkoon na leen fonkeel goo xam ne jeexit jooji moo sabab naar yi ngeen di gis ñuy ñëw ci dëkk bii di seet ci sang yu tedd yi loolu ma nga tàmbale woon ca njaareem daan fees dell ak jëmm yu tedd yooyu sëriñ bi di xeeñtu yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci ñoom naka noonu it sahabatu rasul lu mu wax yonente bi alayhi rek dana leen tàgg ca wet ga du julli benn yoon ci yonente bi te julliwul ci sahaaba yi julliwul ci ñooñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàll ba ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee sahaaba yi ku ne xam na ne dem na bàgg ci di wax ne tagg yonente bi te boole woo leen ci loolu njuumte la ayaa xaadima al muxtaari la tansa saxbahu fa man yansahum fa matxu matxu muxatta u ci di leeral it gi mu am ci digganteem ak ñoom ngir sopp gim sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wax ne a sahba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fi llahi wallahu yaklawu naka noonu it ak soppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba mu di ko feeñal ci guddi gi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu feeñ jamono muy guddi li ñu tudde guddi gàmm naka noonu it xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam àgg na ci di wane cofeel gi mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ummatul ijaaba muy xeet bi nga xam ne bi yonent bi wootee jóge ci boromam subhaanahu wa taala ñoo ko wuy si ànd ak moom woote boobu loolu lépp nag day wone ne buñ xoolee mbooleem domaine yi nga xam ne dafa aju ci ni ñu war a jàppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ digganteeg moom te muy ndigalul yàlla wet goo ci dem danga nga ca fekk mu raw ca ñooña ba suñu borom takkal ko ci ay garaat lool yi nag jural na ko moom it mag ñim yaroon te yar leen ci loolu nga xam ne boo xoolee doomi boppam yi bu dee góor ñi ñëpp kenn la ci turam génn tur yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu dee doomam yu jigéen ñi li ëpp ci ñoom ma nga topp njabootu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mag ñim yar te nga xam ne moo daan joxe ndigal ci seen kër tur ya di fa bàyyi ko it boo demee ci seen kër yi waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi ñoom nga fay fekk ñu fees fa dell moo tax noonu mu wanee yonente bi nag wala fi dañuy wax ne jëmmu takk ndeer du wane lu dul jëmm mag ñim àndaloon nu mu jàppee yonent bi rek ak nu mu ko fonkee jàppe nañ ko noonu fonke nañ ko noonu ñun ñii nga xam ne nag ñoo fi desandi di askane sunu bopp ci moom li yelloon ci ñun mooy nii mu jàppee yonent bi ñu xam ko te jàppe noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu nekkul jagle goo xam ne moom rek moo ko war a jàppe noonu dañoo ëpp jom rek gën ñoo xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ñu koo mos nag gën ñoo mos it euh, saxaaba yi ak seen ngëneel waaye buñ demee ba toll nag ci jamono boo xam ne yonente bi xamuma fan la ñuy xottee war maam wala fan lañ koy woyefale waaye wërta doon dëkk boo xam ne murit bu yaakaar Sëriñ Tuubaa ma nga fay ma nga fay yeewoo jëlee na la ci dëkkam bu tedd bi ndax koo xam ne lu mu am ci kaw suuf nee na yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam lu ma am ci kaw suuf mooma lu mu daj bëgg am ngërëmul yonente bi la alayhi salaatu wasalaam coono bu mu mas a daj métit bu mas a dikk nee na yonente bee ko ci génne moo ko xettali ca loola loolu nag jàpp naa ni ñàkk koo xam li ma waxoon ci njëlbeen gi ne wolof dañuy wax ne nit du fonk lu mu xamul loolu moo dal ñenn ci ñun ba nañ war a jàppe rasulullahi jàppe wuñ ko ko fañ ko war a teg teguñ ko fa waaye jàpp naa ne jataay yu mel nii bu doon bari bu doon bari ci biir ci biir dëkk bi di yaatu yi nag ci pénc murit yi ñuy xamle yonent bi te xamlee ko ci njàngaleem Serigne Touba ak fam ko tegoon ak nam ko jàppe danañ xam ne ku koy fal walla nga di ko suufeel wala nga ñàkk koo jox àqam leneen loo woote ci Serigne Touba ci cofeel sa diggante ak desu ko gëm la tax desu ko gëm mooy abiyaat yooyu yi nga xam ne am nañu ko boole ci waxi imaamu shafii te mooy law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu innal muhibba li man yuhibbu mutiu jàpp naa ni bëgg sëriñ Tuubaa te muy lu dëggu kim ne ci moom dana jéem a xam li sëriñ bi bëgg muy bëgg loole te sëriñ bi ak bëggam mi ngi ko jëmee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax la mu ca wax leer na naññi mahat mahabati al muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada day mel ne kon ni sëriñ bi bëggee yónnente bi ba topp ko ci lépp lu yónnente bi laal mu bëgg loola ñun waroon na nañoo bëggee sëriñ Touba noonu ba topp ko ci fi mu teg yónnente bi ak na ko jàppe ñu jàppe noonu yónnente bi fonke ko noonu jox ko àq ak warma ji ko yàlla jox te bañ a bokk ci ñi nga xam ne lu jamono yàqu-yàqu lu jamono soppeeku soppeeku duñ bokk ci ñi koy umpale waxuma di ko woyefal jëlal naa di ko woyefal a xotti warmaam waaye umpale ci ñun umpale yónnente bi ci boppam xam dayoo bi mu am fa yàlla ak wàccuwaay bi ko Serigne Touba jox ak lim représenté ci yoonu Serigne Touba wii loolu umpale ko dafa yellul ci ñun jëlale naa nag leneen ak leneen ak leneen jàpp naa ne liñ ci jot a indi xëy na gàtt na waaye bu fekkee dégg nañ abyaat yi ci ni ko sëriñ bi bindee du ñàkk mu leer bu lëndëmee ci ñun la suñ jubluwaay moo doon leeral rek wàccuwaay bi nga xam ne Serigne Touba jox na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ciy dëng nag sunu matadi la lu ci jub sëriñ bee in uridu illa al islaaha mastataatu ma tawfiqiya illa billah lu ci wuuteeg teggi nit ñu ngi koy jéggalu mbooloo mépp ñu ci waxee lu tuuse kenn ñu ngi koy jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, ci biir mbooloo di wax ci turu mbooloo daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yore jumaay sëriñ Tuubaa ji ak penc mi ci njiital sëriñ Afiya Busto al imam ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqal ñëpp ci membre daayira bi euh, ñëw ci délégation bi ànd ci euh, sëñ Abdou Khadir Bousso comme niñ ko waxee léegi ak euh, sëriñ Assane Beng ak sëriñ Muudu Mbacke ak sëriñ Seexuna Mbacke ak sëriñ Mor Gueye ak ñi si des ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñëw teewal fi kilifa yi ñi nga xam ne ñoo jiite daayira Muxaddamatul Xidma dem mbégte bu baax comme niñ ko waxee ci teew ci jotaay yu mel nii ak di ko séq ak mbooloo yu nga xam ne mbooloo yu mel nii la yoo xam ne yàgg nañoo séq euh, ay jéego ak ay relation yu rafet ak daayira muxadamatul xidma muy daayira ansaaru diin ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ci nekk daanaka ak dimbalante la ak euh, jaxasoo la doo xam ne ñëpp ñoo bokk daanaka benn liggéey bi mooy liggéeyal islaam ci biir waaru sëriñ Touba wi nga xam ne moom la ñu bokk ñu nekkal leen ci benn côté ñoom tamit ñu féetewu ñu si beneen côté bi euh, yàlla dogal na jotaay yi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma da koy amal ci biir koor gi ak lu génn koor gi dañ ci séq ak ay nit yoo xam ne ci biir mbooloo mii lañ bokk muy daara ansaaru diin wala ñu bokk ñenn ñoo xam ne ci biir euh, masasul azhar lañ bokk di ci jàppalante ak ñun ci wàllu xam-xam ci waxtaan yi ak di ci di ko teewee tamit di ci joxe seen xalaat noonu tamit lañ amee mbégte mi di fekkee jotaay yu mel nii yi nga xam ne mooy jaamia sayfiya euh, tey yàlla dogal ñu dëppee ko daayira Muxaddamatul Xidma ñu war cee teew ci jotaay yu mel nii di sant bu baax suñu mbokk mi nga xam ne moo daan def waxtaan wu am solo wi sëriñ euh, Seexuna Buso Cumbuleen moom tam di ku ñu xam ci xam-xamam ak ay gëstoom ak laabiireem ak mën a jottali kàddu gi ba mu leer euh, jëriñu nañ bu baax a baax ci waxtaan wi ni amee solo ak ni mu jaaree ci tomb yi am solo yi nga xam ne noonu la tuddee leeral sëriñ Touba radiyallahu taala anhu fu mu tegoon euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ak fi mu tegoon sunna ak fi mu tegoon saxaaba yi di mu wax ci lu am solo loo xam ne ñi ko fekkee ñëpp dégg nañ ko euh, aajowu ñu ci guddalaat ci di ko lëndëmal waaye kàddu gàtt mooy sant rek ak euh, santaat daayira bi ak li liggéey bi ak taxawaay bi euh, di leen ñaanal yàlla suñ borom mu gën a leen kàttanal gën leen a dëgëral te fay leen aw yiw ci liggéey bi ñu liggéeyal lislaam ci toolub euh, lislaam bi di toolub Sëriñ tubaa di toolub Cheikh Mahamadul Mourtada daire bi am nañ mbégte lool li ko tere dale ci Sëriñ Afia Bousso al imam Ah, ba ñi bokk ci daayira bi ñëpp ba ñi fi teew ah, amoon nañ yéene eh, mbooloo mi ëpp lii amoon nañ eh, yéene tamit kilifa yu bëree bëri bëri teew fii waaye dafa dajeek am ñenn ñi am ay ngànt eh, dem ci yeneen barab ba ñu yebal ñu ñu teewal leen fii xam ne liggéey bi lépp benn la moo tax ne ñun ñëpp benn lañ dañ leen a nekkal fee ngeen nekkal ñu fii te ba tey liggéey bi ñu ngi koy ñu ngi ko ànd ak yéen waaye ci gàttal daal mooy daayira bi sant nañ lool am nañ mbégte lool ci ànd ak yéen ci liggéey yu am solo yu mel nii di leen sant di leen ci ñaanal suñu borom mu dëgëral leen yokk seen kàttan euh, li ngeen di def suñu borom gën koo ful te fay leen ci aw yu euh, ci daraja Seexul Xadim radiyallahu taala anhu daraja Seex Mamadou Murtada mi nga xam ne moom ngeen di nekk ci ab ab jotaayam Euh, kon daal cant yi ak kàddu yi bu dëngee ci man mii nga xam ne moom lañ koy jotiloo ci man la dëngee waaye kilifa yu baax yi nga xam ne ñooy jiite mbooloo mi euh, amoon nañ yéene jotali kàddu yu gën a leer yi yu gën a jotal yi euh, man sama seen ab dongo laa xam naa moo tax ñu ye ñu jotiloo ma ko maa ngi ciy jéglu baax ci lépp loo xam ne dëng na ci kàddu yi waaye ñu ngi sant ñëpp di jéglu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.